Gambian jigéen yi daal danaa sa advice pour jigéeni Gambian yi. ok Thiam kontaan naa trop si ma laaj maa ngi advice suñu moroomi jigéen yi nga xam ne saf connect def lu baax rek moo leen tax a jóg seen force programme bi ñu ngi fa woon teewewe nañ ko gis nañ lu fa nekk gars yi gis nañ seen design seeg everything te jigéen yi jambaar lañ ñëpp gis nañ ñu nekkee si biir dëkk bi di leen ñaan tamit ñu gën a góorgóorlu te xam ne lu góor def fi mu nekk ni jigéen mun koo def Sof Connect nag day nekk loo xam ne lu ees la fii ni ñuy ñaan mu jur leneen ak leneen ak leneen ak leneen ba ñun jigéen yi nga xam ne ñooy jigéeni réew mi ñu gën ñoo may jom gën ñoo may fit bañ mun a aaga foo xam ne ñu ngi faa bugg a aaga loolu laay ñaanal jigéeni Gambie pare Sof Connect fu ñu bugg a aaga yàlla na fa yàlla aagal suma yoo caam yow mi ko ekkati yàlla na yàlla defal jaam sa lanay sa New Year wis Happy New Year kan nga years Happy New Year in advance maa ngi ko wis suma famille bi di ko wis Gambie yëpp happy new year thank you tubaab ilam advice mum nati birika youth ba connect jibe kan uh, connect is a program mi yalon ka mo link so ngami da ko people should uh, appreciate it no, it's a nice program, and the name of program, let them act maturely, civilized as the program goes on. Ah. okay. Askani nyofi aye, tohnanteɓe birikama wa birikama nuyu leen saf connect s waaw maa nuyu waa GRTS maa ngi kontaan si ñëw fii jokkoo tey Pape Diouf ñëw fii duñu bégal def grand bégee maa ngi nuyu ñëpp daal yow nag koy bégee man Pape Diouf rek ñu bëgg naa ba mu kawe rek ak GRTS rek day nga neex rek lan ngeen a wax seen yeneen daanaan yi ne ñëwul muri daf ma neex mandi muri magan menga daf la laay ni min benta jam wolon baye tata dinti baye ne bulay mol konto mi yalam keba jiate dibe kan saf konek na dalla sare alim bara gambianolo alim bara sene gambianolo balkoma bi lamin cham as a big promoter of the gambian artists yeah. balkoma bi jol fona mbalden lingal tolle la de ning call you people are welcome senegalese are welcome we are here for you guys. Okay. Thanks. Ila advice mu mun pour Gambian music channel. Na advice mu mun music channel pour nga na yena nga karanyola. because musical is all about research ena ah. nga karanyola nindo karantantala ndapananga karandolela mm-hmm. so it's for all mm-hmm. yeah okay. yeah abarka one love yetare la sadero france club e bijang ela do ko ñiñate te fanam fonninkol miyalon ko e ka yusnol mobilise oto nintole jemba kontanal nga diami ye pour yusnol e e fanan je e kawmay mol kon tom folo min ba television Jibeka. Uh, ah, okay, uh, mba move kontona ah, mba follow move. Uh, thank you very much, and then uh, supporting yima kama mba move kontona mba mba ma kontona my lovely mom, and then mba fama lalaka. Okay, uh, ndiye mun soro bi fenti je na manke kontanoti because iko uh, all of jaya fekkee ma si boole dafa fekk sa loxo nekk si biir comme a ah, i bulude feŋ o feŋ to doroŋ wo ka tara ye tara i buloo maŋ sinaŋ i be a fo la ko kaaride a buloo ti jee ah. ah, bii paap naatantol yaa wo ketantol bulu kontaan kuu baal ti hmm. mbégte boo xam ne la kenn du ko mun a bireeg mbégte boo xam ne la hmm. tey man amaluma wax xol fees na DJ Lamin Cham te oncle daat gis naa la kontaan naa torop torop torop torop saa yu ma la gisee rek damay kontaan te saa yu ma la gisee damay feel something inside. dégg la kontaan nañ tamit yow generally lan mooy sa advice si Gambian upcoming Gambian si ñëw ak youth si ndi Gambia generally yow loo war a wax Gambian youth si ak artiste yi. ah man aw ma lu ma war a wax Gambian artiste mooy ne ah, we can make it. Mm-hmm. mun nañ koo def. Mm-hmm. because Gambia mm-hmm. yàlla def nañu. we don't have the uh, we don't have the uh, materials, but we have the talent. Mm -hmm. So solely when we have the materials, we will make it. That's so right. man, I'm I'm hundred percent sure that Gambian, mm -hmm. when we concentrate as others are, or as others they do, mm -hmm. and we will make it, and inshallah we will gonna make it. Mm-hmm. Malola gum. Yeah, Thanks, man. man. My name is Lamin Toure, and I'm saying hello to all the Gambian people, you know, from the president to the layman your holiday so far? Are you having fun in Gambia? Definitely. It's kicking life in Gambia. It's no problem. It's peaceful. We're having fun. It's all about that. What's your advice to the Gambians out there in the U.S.? Well, if, if you got the opportunity, come back home, right. enjoy your time home, mm -hmm. and uh, be with your folks, and then take off. Anybody would like to say hello to? request? I would say hello to all Gambians. All right. Here and abroad. That's right. Thank you. a jamaa la kontaan. a family kontaan with friends so yeah. happy that they do, you know. Iba mne fola birikama nkole, ani nimba, iba mne fola mole birikama to. Ah, mbe mne fola wale because birikama yala diyatale. Ah. So mbe fon soto kande mobo e fintita, mobo e be nice re, you know. Mbe baby is la happy new year, you know. Okay. Yeah. Thanks, man. Yeah. Sungkudo ibe nyari, yeah. birikama ba diyaring. Hari. Albe iba nyinyari. Ah. Iba diyate staff kona, kila message mumuneti, mol ah. bimba tele jive kam. Mol natale. Nada like a fun Saturday, so let's have fun to the max next. Mfala DJ Big Sam la muso bijane wato daba nuyul ni setan GRTS. Euh, may nuyu ñuy setan GRTS yëpp di la nuyu yow Lamine Thiam. No problem. Mo jëkkër Big Sam. Waaw. Lanaay sa message ñi nga xam ne ñu ngi setaan télé askan yi jigéen yi. Ah di leen wax rek pour ñu setaan GRTS am. Waaw. kuy suñu sama sa buntu kër waruloo waale yaane soo ñuy seetaan GRTS as far as waaw suñ Gambie la so we are all Gambians soo nañ dugg seetaan GRTS hmm. GRTS sa kaw sa kanam loolu neex Gambie sa kaw sa kanam ah, nuyul ñu seetaan saf ko nag GRTS hmm. rek Ram Thiam maa ngi nuyu everybody ñu ngi nii dañ ñoo génn si pour ñoo am si fon pour ñoo jàppale si Pape Diouf because Sénégal a Gambia yëpp benn la waaw maa ngi nuyu suma friends ñu pati nice ñu jeexal ko ñu tëddi waaw very nice jërëjëf yàlla na di liggéey si aar bi di support nit ñi di support musiciens yi te ñu tase yoo fii nuyu laa ngum ñu seetaan saf ko nag jiyaat Thiès waaw maa ngi nuyu ñëpp Lamine ba pare di la ne jërëjëf parce que tey soo gisee lii mu am si Gambia bi gannaaw yàlla yonent bi yow la